waaw COSYDEP euh, ndogu waxtaan bi ñu organisé maa ngi sant di ci gërëm euh, sama xarit sama wëllëre directeur euh, Cheikh Mbow ak tam présidente COSYDEP mi ngi fi toog bi mooy ñaareel yoon mooy invité ci ndogu boo xam ne dañuy waxtaan ci lu jëm ci wàllu seen liggéey ñoom maanaam wàllu éducation donc ma sawar ci loolu man nag bu ma ñëwee sama waxtaan dama ko tënk rek ci fàttali nit ñi lii nga xam ne mooy responsabilité ku nekk na ci gën a bàyyi xel lii di rafetal li ngay def

nga taxawee mbiru éducation bi taxawaay ba mu laaj parce que réew mu nekk euh, daanaka réew mu la raw ci wàllu éducation daanaka raw na la kon loolu daal laa tënkoon après ñi fi nekkoon jàngalekat yi imaam ustaas yi fi nekkoon ak euh, syndicalistes yi ñii indi ay laaj ñii indi ay ndollent ay contribution waxtaan bi daal am na solo quoi. tey dañu ñëwoon fii ci COSYDEP ci xew-xew bi nga xam ne ñoom benn ndogu la.

taxawaay booy am ngir gën a mën a ñoŋal suñu lekkool bi ñu jàpp nag ne kon lii am na solo trop moo tax tamit déglu nañ waxtaanu am solo wi nga xam ne moom la fi imaam Kanté def ñun tamit ñu profité ci am ay laaj yu ñu laaj loolu yëpp ngir gën a mën a euh, maanaam leeral suñu taxawaay ngir mën a gën a comprendre tamit ban jonction la ñu mën a def entre maanaam li nga xam ne mooy tey suñu liggéey ñun en tant que syndicaliste mais tamit ak suñu diine nuñ koy gën a mën a euh, maanaam fullale ak yoyu yep nga xam day gëna ñongal ñoŋal rek nekkinu kat bi ñuy rafetlu tamit li nga xam ni tay moy nécessité bi nga xam mom lañu am pour euh gëna taxawal réew mi manam aller vers l'apaisement et encore que lolu ñun en tant qu'acteur de la société civile ku nekk ci wara a taxaw mais ki ci njiitu mooy état du Sénégal bi nga xam mo am responsabilité d'assurer la sécurité de tous ceux qui sont quand même des citoyens de ce pays-là et ñu ko ci xaar